su fekkee ne juuma voilà maam Xëri Mbàkke effectivement moom la moom moo wàcc noonu si si oto bi moom tamit Euh, laata l'arrivée du premier ministre comme ni ko le ministre Moussa Bala Fofana euh, dafay tout à l'heure parce que moom moo njëkk agsi le premier ministre l'arrivée de euh, soxna maam Xëri Mbàkke moom tamit teew délégation Pastef tamit fi mu ne nii teew nañ ndax Cheikh Bara Ndiaye ànd na ak délégation am ànd ak ki nga xam ni moom moo nekk Serigne Diouf Lambaye ñoom nag ku leen xam xam na waa lañ ñu ngi noonu taxaw ñu ngi noonu taxaw di xaar euh, di taaxeerlu ki nga xam ni moom mooy euh, le premier ministre Ousmane ko euh, pour recevoir ko dugg ak moom ànd ak moom dem si biir fi nga xam ne moom mooy kër xalifa si biir kër xalif bi parce que tey jii daal comme d'habitude rek Serigne Mountakha moo leen war a moo leen war a recevoir euh, si kër gi donc ñi nga xam ne ñoo nekk waa Pastef kon euh, comme ni ngeen ko gisee ñoo ngi taxaw noonu Azoura Fall bi nga xam ni moom tamit euh, daanaka foo ko gis rek gis ki nga xam ni moom mooy moom mooy Ousmane donc ñu bàyyi ko mu saafoonteeg ba pare su ko defee ñu jéem seq ak moom benn waxtaan bu ndaw a ndaw parce que diggante moom ak Ousmane Sonko diggante bu ritax la diggante boo xam ne la foo gis Ousmane Sonko rek gis ki nga xam ni moom mooy moom mooy Azoura donc euh, kon nag euh, mu ngi mu ngi noonu moom Azoura Fall bi nga xam ne euh, kon nag teew na comme ni Cheikh Bara Ndiaye teewee comme ni Euh, ki nga xam ni tamit mooy Diouf Lambaye euh, teewee euh, fi nga xam ne rek moom mooy fii si kër xalifa bi laataa rek ñuy recevoir ki nga xam ne moom mooy le premier ministre Ousmane Sonko bi nga xam ni Azoura yàgg naa wax Sonko mooy sama papa moom papa la koy woowee donc kon nag mu ngi noonu su daal di yembee rek ñu jël réaction am premier ministre bi nga xam ni kon war na war na ñëw léegi léegi Euh, fii si euh, kër xalifa bi donc ñu xaar euh, tey lan lañu mën a xaar lan la ñu mën a jàpp si kàddu yi nga xam ni kon premier ministre donc la mën a xaar Assane la mën a xaar si li xam ne kon moom moo nekk l'arrivée dégg nga nee na yàlla ñu yàlla may maa moom nag parfois voilà donc euh, nay leer a noonu moom tamit di daal di nuyoo baal ma rek ñu jege si tuuti rek ñu am li nga xam ne moom mooy euh, réaction yi su ko defee rek ñu daal di leen jël en direct si. fi nga xam ne mooy si kër xalifa bi euh, fi mu ne nii nag euh, déplacement yi nga xam ne kon waa Pastef ñu ngi koy def mooy euh, ñi nga xam ne tey ñoom ñoo nekk nay nay leer moom tamit mu ngi noonu di di mbëkkante ki nga xam ne moom mooy Cheikh Bara Ndiaye donc comme ni ko muri defee rek dafay am solo <laughs> mbëkk mi donc mu ngi noonu ñu ziarante ak ñi nga xam ne kon ñoom ñoo ñoom ñoo nekk noonu waa membre waa membre Pastef la ñuy gis <laughs> c'est vrai que le premier ministre mooy ñëw ñoom tamit jot nañu teew beneen remarque bi mooy jéey gis nañ aussi le premier ministre wala le président de la république Diomaye bi muy ñëw fii euh, ñiy teew fii tey gisuñ leen woon si président de la république bi ñu ñëw loolu tamit benn constat rek bu ñu def la rek benn moo rek Ibrahima yaa ngi en direct donc ñu nuyu la rek si teewaay premier ministre euh, ñu jël la rek euh, su ko defee nga ñu jege si tuuti rek <laughs> ñu dem ñu déplacé rek ñu am réaction bi nga xam voilà euh, Ibrahima ñu ngi lay jaar sëriñ bu baax a baax gannaaw premier ministre bi ban kàddu waaw ah, xanaa sant yàlla bu baax rek di dolli ci lañ daan sant di ñaan yàlla mu ñëw ak jàmm ñaan yàlla mu delloo ak jàmm di ko ñaanal jàmm ak ak ak euh, mucc ak màggalu jàmm li muy sàkku si ci bis bi nga xam ne moom ñëpp yi daal ñu ngi koy ñaanal mu ñëw ak jàmm te yàlla na ci dëppoo ngërëmal Serigne Touba. ndax moom fu lu baax nekk lu ne loxo ma nga fa te xelam fa kon nag dañuy sant yàlla baax a baax a baax ndax lii nii dafa am lu ma ne lu bari ci démbam ak teyam démbi Ousmane Sonko ak tayi Ousmane Sonko Ousmane Sonko démbam ak tayam benn lañ sëñ Abdoulaye Mbacke daa waxoon nii nit waxi démb ak jëfi tayam bu ñu dee benn jàppal Ousmane sonk na meloon démb la mel tey Ousmane sonk na meloon démb ni la mel tey. fam nam jàppe woon kilifa diine yi nam jàppe woon Touba démb noonu la jàppe waa tey te loolu wane na ko ci ay waxam wane na ko ci ay jëfam kon nag ñu ngi koy ñaanal gi ak jàmm delloo ak jàmm ci barke Serigne Touba. boo doon xoolee waaw waaw dañ ko gàttal rek su ko na rek. loolu loolu loolu ñëpp xam nañ ko li ñëpp xam moom loo ci wax rek mu doy. Hmm. dañuy sant yàlla rek kon yàlla doon na in sakartum la asidanakum wala in kafartum inna azabi la sadidun bu ngeen sante ma dool leen sant rek ginnaaw fii fii la ñu fekk ren daal dañu sant yàlla bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatulah. Ibrahima Gueye ne leer donc euh, yëkkati woon ay kàddoom yu njëkk nag euh, sëriñ Assane Mbacke tamit maa ngi koy seen ñu xaar ko rek mu daal di ñëw fi nga xam ne moom mooy fii si kër xalif bi euh, kon wax naa ko tout à l'heure wala jàngat bi nga xam ni mën nañ ko def tey jii moom moo nekk mën nga ma jëlal l'arrivée de sëriñ Assane nga dem ne braqué li nga xam ne mooy sa caméra bi nga waneel ma rek li nga xam ne moom mooy sëriñ assan Mbacke bi nga xam ne kon moom tamit ñu musoon koo teg loxo si ay événement passé yi nga xam ne loolu yëpp jotoon nañ ko daal di nemmeeku alors euh, si fii si euh, fii si Mbacke wala fii si fii si tubaa donc kon Serigne Assane Mbacke ah mu ngi noonu di saafontek ak euh, ak ñi nga xam ne kon ñoom ñoo nekk fii si kër gi noonu di di ñëw donc mu ngi noonu di jokkoo ak téléphone Euh, ñu fàttali moom tamit euh, taxawaayam si parti Pastef laataa ñuy ñëw si pouvoir bi ñëpp remarqué nañ ko si anam gi nga xam ni kon euh, maa ngi fàttali sax biñ koy njëkk a teg si manifestation bi nga xam ne kon Pastef moo ko organisé woon si terrain bi foofu nag lañ ko njëkkoon teg loxo waaye tamit ñaareel yoon bi koy teg loxo foofu lañ ko mujjee placé ko mandat de dépôt mu def ay weer si. si kaso bi laata ñu koy libéré tamit biñ ko libéré tamit gis nañ déclaration bi nga xam def nañ ko euh, kon nag euh, moom mi nga xam ne sax tey tubaa fii la dëkk kon dina bokk si ñi nga xam ne ñooy dalal seen mentor si politique parce que ku ne xam ne ne tey Ousmane Sonko moo leen mooy seen mentor mooy seen kilifa si wàllum politique waaye Ousmane Sonko en tant que premier ministre tamit war a ñëw fii ñu war ko daal di recevoir fi nga xam ne mooy fii si kër xalifa bi mu nekk taxawaay boo xam ne ñenn ci waa Pastef euh, mënee am li nga xam ni moom mooy déclaration am rek euh, Serigne Assane Mbacké euh, dina nekk loo xam ne lu ama am solo la donc ñu euh, jege si rek pour mën a am li nga xam ne mooy réaction le premier ministre yéen kàddu ngeen mën a yëkkati. waaw am mbégte contentement rek ndax ku nekk xam na ne Ousmane Sonko moom nit la koo xamante ne maanaam diine da ko ñor lool mu nekk lu mu yàgg wax mu nekk tamit lu mu gëm kon tey bu Serigne Touba wootee mu ñëw lu war la xanaa ñaanal ko yàlla suñu borom mu jàppale ko ba yéene ji mu am ci diina ji ak yéene ji mu am ci liggéeyal ko réew mi suñ borom may ko lu kawe njortam te am nañ ci yaakaar loolu nag di am mbégte contentement parce que màggal gi li ñu ci gis ren taxawaay ci wàllu état mësam c'est la fois te loolu ñëpp ko ñëpp ko maanaam remarqué kon loolu sant yàlla la ñu ngi ñaan daal lépp luñ ci ñaan ak lépp luñ ci jaamu yàlla yàlla na ko yàlla nangu suñu xol sedd na sunu xel tamit dal na bu baax a baax di ñaanal son excellence Bassirou Diomaye Faye sunu borom gën koo defal jàmm gën koo dooleel gën koo kàttanal ba fi mu bëgg a eggal réew mi sunu borom may ko tey am nañ caakaar lool ndax moom tamit noon ndax boo déggee keroog li ko sëñ Mountakha wax ne ko li tax ma gën a am ceew ñeewante li tax ma gën laa bëgg mooy da nga bëgg diine da fonk diine te loolu nekku lu mu wax lu mu jëf la ndax bi mu toogee li mu njëkk a def mooy dem seeti kër xalifa diine yi kër xalif yëpp te loolu lu am solo la ndax Sénégal dafa am ay maanaam réalité yoo xam te dafay am ndax ku fi toog ak koo mën a doon foo jaar jox diina ji gëddëm foo jaar jox tamit diina ji cëram loolu lu wér la kon ñaan yàlla suñu borom rek ñu màggal màggalu jàmm ñaan tamit lépp lu fi waaye indi ci bëgg-bëgg ci saafara suñu borom daal di koy defal ñaan yàlla tamit bu baax a baax a baax rek euh, ci euh, yoon wi ak ñëpp rek maanaam euh, yoon wi bañ am benn accident bañ am benn soog ñëpp ñëw ak jàmm delluwaat ak jàmm. jërëjëf sëñ Assane xam naa ne dañuy bàyyi. mu nekkoon Serigne euh, Assane Mbacke donc euh, yëkkati ay kaddu jëmale ko yëkkati ay kaddu jëmale ko si arrivé bi nga xam ni kon euh, le premier ministre Ousmane Sonko bi nga xam ni moom moo moom moo war a daal di agsi léegi léegi lay doon kon mu nekk délégation bi nga xam. waa kon euh, ñoom ñoom lañ fi gën a gis si accueil bi nga xam ni Seydou gisuñ ko woon si président de la république bi muy ñëw euh, parce que président de la république bi muy ñëw ay ministre la àndal comme ni ñu koy ni ko président yëpp di defee mais cette fois ci le premier ministre Ousmane Sonko gis nañ